ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar baax di leen jox seen wàccuwaay euh, saa su ne nag nañ koy defee ak ndaanaan bi ñuy wane ndaanaan bi ñu leen di présenté seen émission tribunalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi tey nag ndaanaan bi ñu leen fas yéene présenté ndaanaan bi nga xamante ni tey moom lañ leen fas yéene wan muy doomu géwél piir di sëtu géwél nag di doomi ndaanaan ba pare nekk ndaanaan tamit macha allah. di tëgg lu am solo xew ci jamono nag yëngal jamono xalil gay xalil gay xalil gay foo toll di ko dégg man xaw ma lu waral loolu dama koy bàyyi mu nuyoo présenté wu après ñu dugg ci waxtaan bi xalil nay nañ la. waaw salaamaaleykum ndongo maa ngi lay ziar ku nekk sa sant du nuyu waa Sénégal yëpp du nuyu waa xar yàlla sama gox ndax ñoom lépp lu maam ñoom la kon nuyoo bi si ñoom ko njëkkee di nuyu sam papa. di sama yaay di nuyu ñëpp maa ngi lay siyaar bu wér donc. nuyoo moo ngi siyaar Khalil Gueye euh, balaa ñuy xuus ci waxtaan bi rek bëgg nañoo xam kan mooy Khalil Gueye. waa nango Khalil moom benn benn Baay Faal la rek bu dëkk xar yàlla teel am lu muy bañ xam nga boo nekkee xale foog nga teel am ndax boo amul ndax boo tala amul jom dañ la yeb mm-hmm. te Sénégal pour ñu yeb na dafa gaaw mm-hmm. moo tax boo nekkee xale mm-hmm. foog nga teel a am jom am li ngay bañ ma teel doon jàmbaar xam nga jàmbaar yombul surtout nga doon xale dama teel doon jàmbaar moo ma may tey li xale waaw ci man doomu géwél laa ñaari yoon ci baay ndax dama nekk ci baay ndax kuñ ne làmb bu naa maas mooy sa baay waaw bu xar yàlla mën naa ne sama papa daa ko tëgg ci àdduna ah sañ naa ko wax waaw ne tëgg ci àdduna sama papa Lama Gueye foo taxaw ci Sénégal ne làmb bu naa maas nen na kookoo dàq tëgg ci aduna géwél yi ñu ngi lay seetaan de xale non li may wax fu leer laa ko teg nangu waaw ah, ma ne lama bu naambaas moo dàq tëgg Sénégal te pare teg ci ay doomam hmm. ñoo dàq tëgg Sénégal xalil ah, yow mbaa mbaa mbaa la yóbbu police tamit non non nga tamit ah non non xaaral rek xam nga yow fan teg sa wax boobu non xam nga senegal dañoo bëri ay naxante waaw surtout ñun géwél nga ñun géwél yi nag ak ñoo xamante suñu biir hmm. dañoo xamante suñu biir xëy na caméra moo lay tiim ngay wax lu neex mais ku xam Lama Gueye bu baax xam ne naanaan la yoo xam nga ci dara nango sama papa naanaan la xam nga dinañ gën di jur muus jamais kon sama papa naanaan bu mag la ay doomam tamit doon naanaan bu mag gars yi xam nañu bu baax de xëy na ñoom la neex ñuy daf daf di bëlëfe noonu rek mais xam nañ bu baax a baax. Hmm. bilaahi. ci wàllu yaay. sama yaay gawlo la gawlo la sama mam bu sama mam bu jigéen ak euh, yay Youssou Ndour ndey soxna Mbow ñoo bokk benn baay ah. kon xam nga ne géwal laa ñaari yoon. kon nag wàllu yaan siwu ma ndax dama di doomu géwal ci ndey doon doomu géwal kon moo tax ma géwal laa ñaari yoon mhm. kon su ma tëggul dama war a tëgg su ma wayul dama war a way su ma feccul dama war a fecc mhm. loolu laa amoon lu ma la wax soo tëggee da nga war a tëgg soo tëggul da nga war a tëgg soo woyee da nga war a woy soo woyul da nga war a woy ngay géwal ñaari yoon ci ndey ci baay mais lii ngay def loo dond la wala loo namp wala loo jàng la waaw xam nga doomu géwal moom li li Sénégalais yi naan deretu géwél dafa fort deretu géwél dafa fort trop trop trop trop trop trop ndax man mën naa ne tëgg bi jànguma ko. Hmm. dama ko doon mais xam nga géwél yu bëri dañu naan tëgg moo yàq sama jàng man nag demewul noonu man. gannaaw jàng ah waaye man moi j'ai fait les bancs waaw dem naa ba troisième te ba ma bàyyi jàng yàggul. su ma juumul deux mille dix neuf laa bàyyi jàng deux mille dix neuf lépp lu ma am nag mbay caam mbay caam mooy mooy sama mag bi ma bokkal ndey ak baay moom mën naa ne tax moo ma forcé xam nga géwél yu bari te ñoom dañuy naan man dañ maa forcé aar beeg man nag man bugguma woon ndax man leen laa xamoon dem jànge dem fubali mais su ma tollee fii ci aar yàlla ak mbay caam la ndax euh, moo ma a jox sabar ma tëgg moo ma njëkk a jëndal tubay moo ma njëkk a jëndal yére forcément nag ne ma yow da nga war a tëgg ma ci xeex ak moom des fois dañuy am programme sax fii laay toog ñu dem tëgg ba ñëw ñëw sedd ma téeméer ma jël dugal sama su ma fàttalikulee benn programme laa dem mu neex ma quoi fekk man nag mbaytaan dama ko yàgg fan nag waaw moo tax man aw ma beneen tëkkat bu dul Mbaye Thiam ci kaw àdduna waay waay mooy sama lépp Mbaye Thiam di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm programme bi fii la woon monument mm-hmm. boo yëpp génn dem ma ñëw ci programme bi maa ñëw mm-hmm. ma toog ci programme bi Mbaye Thiam di tëgg ma koy xool rek muy tëgg ma koy xool rek boobu tamit sama bu góor bi Pape Gueye mm-hmm. moom moom mi ngi may bay xel Mbaye Thiam di tëgg ma koy ñu tëgg ba pare ma ne sama mag bu góor bi pap mu ne ma naam mu ne ma ma ne ko mbaa xam nga ne incha allah rabi dinaa doon tëggat pap ji ma reetaan te boobu yaa ngi loon jàng tëggagoo. waaw boobu tëggaguma boobu tëggaguma mhm. pap gay ne ma ah waa baax na ñuy dawal dawal ma commencé ànd ak mbay ci am tëgg ci programme yi. maanaam virus bi foofu la la. waaw nga commencé adapté wu carrément xam nga. nga bokk ak nit ndeek baay bëgg ko man Mbaye Thiam dama ko bëgg waaw muy tëgg li tëgg neex ma trop ma ne dinaa doon tëggat par la force par A ou par B noonu ñuy dem Mbaye Thiam moom mu njëkk jëndal ma mbëng ma mbëng ma ngi fay ci biir mu jëndal ma mbëng ma yóbbu ñu forol ma may ànd ak moom di teggi may ànd ak moom di teggi may ànd ak moom di teggi yàlla def tay benn tëggkat sabar laa am muy man. tëggkat sabar yi bëri nañ fa de. waaw déglul xale tëggkat sabar yi bëri nañ xar yàlla de. du ma ne xar yàlla. wala yow yaa téye gem bi sa loxo. ma ne xar yàlla dama naan xar yàlla. Grand Yoff jëppal derkale aliment boobu maa ko moom ndax. fu ñaari communes yi la seq. maa fii ma fii maa dirigé. maanaam ñaari communes yi la seq yow yaa téye gem bi fii maa dirigé par la force loolu moo am. yow yow loo fi defagum ba war a diri sa tëgg mi yow. non xam nga sénégalais bëggul ngay wax ne lii laay def non non da ngay def preuve ñu gis. waaw non yow sa preuve lan la lan nga fi créé gum ak ak lu war a mun a tax yow nga téye gem bi. non parce que ñi fi nekk tamit am na lu ñu fi créer loo xamante ni tax na nit ni nit ñi ràññee leen xam leen baax. mbaa xam nga ne yoole maa ko fi njëkk a andi. yoole yoole. barke Serigne ya Mbacke. yaa ko yow yaa créé yoole yoole. dèjà rek groupe bi la tudd. Ah, sa batterie. yoole la tudd yoole. yoole yoole yoole fii la jóge loolu moo waral yoole yoole bi xam nga ku nekk ñu ngi naan yoole maa ko moom ay Momo Dieng maa ngi dégg ay booy dëkk Medina naan yoole lii non non yoole fii la fekk ñoom ba ñu naan yoole waa maa ngi dégg benn booy bu dëkk Medina xaw ma tuddee boppam xaw ma lan lan yoole su ma juumulee Euh, Mass Mbaye Petit Mass moo doon def moo doon def tànn biir ñun ñu jóge fii dem fa boobu sax partenariat commencé gu loon waaye fekk maag partenariat man ak moom ñoo doon ñoo doon fanaan partenariat way yoole man maa ko tëgg. kan mooy kan mooy partenariat. affaire la kooku moom sima sima la. waaw mais mais wéykat la. lu mu fi wéyagum. non partenariat mooy borom bari bari. Ah, ah, bari bari bari bari. te loo ci saabu du fóot boppam son bi li nga koy dégg yëpp man mii maa ko bari bari Pape Thiona mi ngi may dégg man maa tëgg bari bari man. ah bon man maa ko créé sax laa yàq man maa créé bari bari xam nga tey foo taxaw waxoon la non. mais léegi ci biir yoolu yoole bi. léegi yow nga ne yow yaa créé yoole yoole. waay ba tuddee sa groupe yoole yoole. li ma la wax xëy leer na yoole yoole yaa ngi nii kër yoole dama ko bañ ba groupe bi yoole la tudd. mais dina ñëw ci ni nga ko créé ak ni nga ko tëggee mais à part yoole yoole leneen lan nga fi defaat. bëri na bëri na loolu. xam nga fii am na. mais nag wuy ma xam nga fii booy fii booy fii wax dëgg yàlla dañ ko dañoo yëngal gem bi ba bàq boo tëgëree dinañ ne diw moo ko créé wala diw moo ko moom am na benn booy bu dëkk aslem nee na moo créé feccal sësal xaw ma sësal sësal sësal loof newaat moo fi créé euh, suus newaat moo fi créé euh, feccal Mario Mbaye xam nga moom moom nee na fecc fecc fecc yi xew ci jamono ak yi fi ba jot a jaar yëpp moom moo ko créé kon yow kon yow yow à part à part à part à part euh, yoolu bi ban nga fi tey ban nga fi defaat. waaw may may tuuti rek mooy fi nga fi nga jóge léegi léegi kooku ngay wax kooku maa moom ñoo bokk game maa yéen a bokk. ñoo bokk mafia man moom. ah moom xam na man xam naa moom xam na man xam naa gis nga tëgg sabar nekkul ay créé ay baax lu garaw laa lay wax nii xam nga mën nga toog ni créé benn affaire mais barki Seydina Mohamed booy booy fa jox sabar ne ko tëggal mu tëgg ba pare nga ne ko li nga tëgg nii damaa bëgg nga décortiquer ma ko barki Seydina Mohamed ak takkusaan bii du ko def ah amul nouvelle génération bi amul. Ah, kon kon li li li mag ñi di toog di jooy naan tëgg mi dafa yàqu dafa yàqu kon loolu lool am na. non xam nga jamono bu nekk ak lii xew. yaa ngi comprendre. waaw loolu nangu nañ ko mais tëgg mais tamit tëgg tëgg am na yoon. tëgg dafa am yoon. tëgg dafa am yoon dafa am commencement am fin. Mhm. mais tey jii nii da gis benn bambara bu toog léegi yaayam teggi na jox ko mu dem jënd ay sabar. bambara. <laughs> non xaaral rek. non. kaw bi ba ba ab bambara la de. bi bambara de. xamal loo ci bi moom moom moom moom sama waay la. yaa ngi comprendre <laughs> du jàng tëgg. tëgg maanaam day jënd ay sabaram rek ñëw teg commencé di tëgg te jàngul tag tëgg dañ koy jàng tëgg nekkul da ngay da ngay andi say sabar teg nekk fa tànkal nit ñi de ah, ah tëgg lool de tëgg da nga koy jàng fa da koy xam. ah bon. barke karim te booy jàng tamit am na foo war a tàmbalee. Ah, dafa am fooy commencé da ngay tàmbalee ci tungu ne. tungu ne après. boo ci tungu ne mhm. da ngay malax ma mbëng. Mhm. boo boo mbalaxee moom ba pare nga ñëw tulli talmat mais léegi loolu amatul da ngay gis ku ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam léegi ñëw jël der dirisé. te te du noonu. Ah, ah. te tey jii boo ko joxoon nder gi ne ko tàggu mbaaral. day ndeysaan du tàggu mbaar. non mais laal nga point bu sensible na parce que tàggu mbaar boobu ngay wax mag ñi ne nañu déggatuñ ko ci hmm. tëgg xale yi tey. amatul de yow bokk nga ci xale yi mën a tàggu la donc <laughs> xam nga ne saabu du fóot boppam. ah mais mais balaa balaa ñuy continuer waat ak ci yeneen question yi des nañ nañ ñam tàggu mbaar bi ba pare parce que tamit weer weerante xuuxaan moom su multiplié ji nañ nañ nañ nañ xool tàggu mbaar gi ba xam ndax lusig na wala lusigul jaar na yoon wala jaarul yoon tàggu mbaar gi moom foog foog faw ñu xam ndax la fi maam ñi bàyyi woon ak yow li nga dondu dëgër na wala dëgërul parce que lu waay dondu day dëgër <laughs> kon ñu dem ci tàggu gi. dégg nga tubay waaw mooy tàggumbaar bu jaar yoon. jaar yoon xam nga. mais mais am na ñoo xam ne dañuy wax ne yaa moom tàggumbaar la lol loolu am na wala amul. non yaa moom xam nga loo gis daa am salaamaaleykum comprendre nga. Mhm. loo gis daa am salaamaaleykum xam nga boo dugg si kër nga ne salaamaaleykum mhm. boo ci kër nuyoo borom kër gi am na fulaa na la ci biti mhm. moo tax tëgg am yoon moom da ngay commencé léebu comprendre nga noonu la demee nag. mais yaa ñuy moom dama dama dëkk sama micro benn paawu géwél mu ne yaa ñuy moom maanaam mooy léemu bi mooy comme saaru comme nga ne xul wallaahu ahad allaahu samad yaa ñuy moom mais moo dafa ma tëgal yaa ñuy moom bu leer naññi ba pare dugal ma ci Baara Mbaye est-ce que mën nga ñëw ci yaa ñuy moom soo pare dugg ci Baara Mbaye après ñu waxtaanee sabar yi. gars yi jàpp leen. foofu laa bëgg ñu dugal ñu ci yaa ñuy moom. bu normal après nga jaar ñu continuer ci baara mbay xool ba xam tëgg bi ndax moo nga foo la de ba pare avant loolu avant booy di jàpp sabar yi lii nga yor mooy ban sabar lii mooy nder bi mooy ndeer ndeeru peeg laki nder ndeer peeg ndeeru a ah, xam nga ndeeru peeg dafa am ak ndeeru jëmbe ah, bi ndeeru peeg bi ndeeru peeg la lan moo waral peeg yi ana peeg yi peegee li ah, ah lii mooy peeg li Ah, kon suñ ne peeg ci sabar lii moo tax ñu naan peeg. lii moo tax ñu naan peeg lii mooy ndeeru peeg maa ngi dégg nag fan yii nag am nañu ñu ne lan moo tax léegi ñu bàyyi sabaru peeg di tëggee ay sabaru jéembe. ba pare ak mbuus toile mbuus toile mhm. lépp dinaa ci ñëw dëgg la ñun lii lañ moom lii moom. ba pare per per Xaadim Mbaye dama ko dégg sama micro mun a mees peeg mais mees ana mees peeg bi. lii mooy mees. Ah, lii mooy mees. waaw yaa ngi yaa ngi wax lu am solo mees peeg dama ko fàtte woon sax ndax am na benn su ma suñuy papa ak suñuy mag yu def benn benn ki nu tudd waaye benn euh, groupe tuddee ko mees di kaas di kaas ci sabar yi quoi. la kaas baax na trop. kaas baax na trop. waa mais xaaral la mais nit ki boo tegee dara dangay def dara. da nga fay teg dara ndax yow munoo ne na xale yëpp jël seen sabar def ko def ko kii sabar peeg xam nga tey ji doo fekk man doo fekk man maa ngi sabaru peeg maa ngi maa ngi ay sabaru jëmbe yoo xam ne dama ko fóon mbuus man ah waaw jii kii nii tey soo tëggoon mu xotee ko nii léegi léegi léegi léegi léegi soit da nga jël mbëmbëng mais sabaru jëmbe da ngay tëgg léegi mu xotee ko léegi nga for ko léegi yégal sa programme. Ah, loolu mun na nekk. loolu moo nekk sax. ci ci sabaru jëmbe. waaw maanaam day fekk nga foree ko mbuus. waaw day xotee ko léegi nga for ko léegi nga tëgg si léegi mais lii bu ko léegi léegi. soo ko foolee tey tey la kañ tey la jeudi lënd nga ci tëggaat lënd nga du wow ba pare mm, lii dama ko jootu dama ko jooju fu ne mooy maanaam maanaam euh, dafa amoon suñu suñu suñu ay papa kilifa yu fi ñëwoon pour wax dañuy def benn groupe def ko tuddee ko mespec mespec lu am solo ba pare euh, ñu ñu ñu organiser woon benn benn benn kiiwaay lu mu benn concours tuddee ko grand prix Pa Jundiaay Rose. waaw suñu suñu maam jooju yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana moo fi def lu kenn euh, ñu ne woon concours bi grand prix Pa Jundiaay Rose lañ koy tuddee mais du am sababu du jëmbe yaa ngi ko bu baax. waaw sabaru pek rek dong lay doon. sabaru pek kese. waaw ah, kay. léegi loolu mujj nañ ko exploité wala mujj. waaw déglu rek maa ngi ñëw. moo tax ma ne la ñooñu ñooñu di xeex mais pek loolu dëggul ci ñoom. Ah, loolu yow yow boo sañoon loolu xeex boobu day continuer. day continuer ñooñu dañ ko def ngir seen poche mais defuñu ko pour pour ñun ñun doomu. jaww ji ndaw yi merci beaucoup. yaa ñu ne woon ëtt côté nekk Sénégal non ñu nekk Dakar ñu dem def seen sélection mais localité bu nekk day am day am koo xam ne moo fay représenté kenn mais mm, fii nii parce que ñëpp yëgoon nañ ko suuf ñun. ñëpp moom métti na ma trop moom. mais lan lan moo taxoon lan moo waral ak lan moo ko indi woon loolu. ki géré woon loolu noonu. bu man du ma ko yëg du ma ko nga est-ce que yaa ngi dégg may waxee ak ki géré woon loolu fii ba suba ñooñu bu ñu ñëwul seen tànk fii man ma ko yëg comprendre nga bu baax lañ fo mais ki seere loolu moom yow yow ak moom lan moo tax seen diggante ba ba affaire bi demee noonu non du loolu de dafa am lu la jàppal wala boog yow sa sa mun tëgg gi la la enale wala la non non xam nga euh, nit booy déranger man damay déranger ah bon barke alxuraan déranger sa mbokki géwél yi fi ne sa nawle yi non man waxuma kenn dama ne man damay déranger da ngay déranger léegi ñi sama boy ma toog nii duñ ma fen ba mu desee deux semaine lañ ko yegg affaire yi defee deux semaines ba mu desee deux semaines lañ ko yegg boobu leen non pare wuñ dara ba mu sama benn jigéen moo fa dem kooku maa ngi koy nuyu de passage du ma wax nag moo fa dem xool ñëpp gisuñu charge la moo téléphone ne ma yow la moo tax gaa di def a concours bi yéen ak gisuma la ma ne ko ban concours ba mel ne ku yëgul dara ma ne ko ban concours mu ne ma grand prix page ci saasi barki Seydina Mohamed ci saasi la ànd euh, waaye doomu Pathé Ndiaro Diop bàyyi xam nga man ci tey laay waxee lépp lu mu wax ñu ngi koy seetaan tamit. Euh, doomu Pathé Ndiaro Diop bi damay fàttali tur bi waaye. ñaar ñoo ànd ñëw ñu daje Cheikh Max ba ma ñëwee Cheikh fekk naa fa sama yeneen mbokk géwal mu ñëw toog wax nañu nii lay demee man dèjà rek dèjà ba mu commencé man laa man bokkuma. ba affaire commencé. non ba ma commencé di wax. yow ba nga tàmbalee di wax la. non moom ba ma tàmbalee di wax la. Ah, moom moom ci boppam. Ah, ok ndax liggéey liggéey day am yoon. Mhm. yow mënoo ne grand prix. mais lépp daa war a nekk ci kayit. mais moom ci lenn rek la fu lenn rek wax no première bi dina am trois millions. deuxième bi dina am deux millions. troisième bi am xaw ma moom foofu rek la doon basé foofu rek la focus. foofu rek la focus. mu wax ba jàll mu wax ma ne ko waa baax na su ma demee naa ci waxtaan ak sama ménagère ba ma génnee laa supprimer numéro parce que parce ko doxalee neexul la. doxalee noonu waa kay bàyyi. léegi euh, sama mbokk géwél yi nga xam ne man sekk naa ak ñoom loolu kenn ku ci nekk jël naa sa sa jël naa sama téléphone. woola na la ah booy yéen lii nii ngeen dugg louche la ba ñoom sax mu jógee dama doon mere di jéem a diggante ak mag mbagg te ñooñu mosuñu ma yab ma ne non comme que noonu la demee naan bàyyi ñoom ñu géré dem def quart de finale demi-finale ba finale bi jot ñu ñëw seeni yére ñooñu jox leen ay billets ñu bañ ne final bi tay la ñu ne ko non léegi ñooñu woote waat ne dañ koy renvoyé waat ba samedi joxaat la ñeen biir ñu jaayaat ba tey ba sànq ba nii te loolu noonu balaa weer koor gi la woon bii passé su ma juumul peut-être mois de mois décembre bi la woon ba nii waaw bi mu ngi am ba ñooñu woo ma ne ma xel ma leen xale laa kenn du ma nax. maanaam yow am loo gisoon daal. non nit ki lépp man lépp ci kayit laa koy teg. da nga gis ne da affaire bi jaaru ci yoon. non non jaaru ci yoon. Hmm. man di wax rek ma ne ko déedéet. man bokk waaw ndax lépp normalement nit ki boo ñëwee di ko wax concours di nga ko andi la ay kayit yoo xam ne lii mooy lii mooy firndeel li lii la lii la demee mhm. noonu mhm. ba sànq ba nii dara amul. noonu la demee ba sànq ba nii histoire bi muy wax noonu la fa demee léegi dama bëgg ñu ñëw ci yaa ñi moom après dugg ci Baara Mbay suñ paree nag ñu ñëw ci rôlu géwél ak ak maami géwél liñ fi bàyyi woon ndax yéen yéen a ngi fa ba léegi wala neew leen ñu ñëw ci yaa ñi moom après dugg ba. bi bi bi ban la. bi coolu lan la coolu waaw ah, col moom peeg lay mos a doon. ah col peeg a doon amul ay mèches. non soit mën na doon gorong. Ah, jël fi am. ayca. Hmm, ah, ñu ñu dugg yaa ñuy moom bu set. bu jaar yoon suñ ci pare ñu dem Baara Mbay après waaw mooy loolu. ilaha illallah he waaw ñoom ñaari ñaari waxtaan yi lool foofu laa bëgg a ñëw laa ilaha illallah yaakaar naa ne tey moom magi géeli moom tey buñ setaane émission bi seen xol dina sedd lool parce que tamit lii ma dégg fi ma jot a jaar du ma ne dégguma ko de wante tamit li ma dégg pire na de ak xali ndongo waa gis nga gis nga xam nga des fois baax xam nga tey jii di géwal yi léegi koo ne ko dama bëgg nga tëggal ma tëggu géwel fa nekk teg ay cung déranger ah waaw def yaa ñu moom tagguma sama bopp de tagguma sama bopp mhm. mënuma dara fii yàlla rek a mën mhm. tey jii lii koo ko tegal dina la ah ñii ay doomu géwal lañu mhm. xam nga tey kon ke ko éviter woon day teg ay cung teg ay bool teg clavier nekk fa waaye ak sonal mais tey ko ande woon teg nii liñ fi teg ni kenn ko dindi. amul paan amul bool amul clavier. voilà naturellement. tegu démb tegu démb. nga def nga waxtaan. ndeer bi ak waaw waaw loolu mais lan ngeen waxtaan yéen ñaar ndeer diggante ndeer gi ak cóot. bi déyoo bi lan la woon. loolu c'est normal. normalement gi nga kii kii da ngeen may wutul kii sama rakk la Sadio ñoo bokk nday ak baay. kii doon tëgg cool nii mi tëgg cool nii man ak moom ñoo bokk ndey ak baay yaa ngi comprendre mu doon koo xam ne ni du ma ne mën na ndax ci àdduna yàlla rek a mën. dëgg la leen rek laa koy ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat. nga nu ak ko xam bu baax. gaa yi xam nañ ko de. des fois damay dem ci ay soirée sax ko fa fekk. ci ay orchestre yu mag mu mu fay. ñun ba ñàkk ba sama papa bu ñuy tëggal ñu wax di leen nëmbatu ndax xam na ndax xam na ay doomam ay doom yu dangereux te kii moom xam nga fa bu nekk day am koo xam ne ni yàlla day def ci moom loo xam ne ni day day jéggi dayoo ne kii loolu la yàlla may leen rek laa ko ñaanal yàlla yàlla defal ko cat. xale la teel a bëri doole maestro yu mag yi xam nañ li may wax yal na ko yàlla defal jàmm c'est ma may tëgg moom may tontu loolu géwal rek ku mën ku dul géwal su ma doon tëgg fii ba suba da may da nga tëgg rek. maam dégg bi quoi dégg bi loolu loolu biir géwal dégg-dégg boobu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm sama rakk ji. ma jël ko mais mais mais Sadio ci lan nga ne. waaw maa rek. mais dama fi gis lu daw sama yaram léegi nii sa digganteeg sa mag. waaw xam nga tëgg dafa am yoon. Mhm. mais ñu xamuñu ay doomu géwél leen. Mhm. dinañ juddi fekk ci ñu ko def. Mhm. waaw kon bu ñu ko deful rek kon du nay waaw na xali moom sama mag la man moom ñoo bokk ndey ak baay. waaw man moom nee lépp lu ma def. mu su may engagé programme wala may dem fenn. xale laay message comprends nga xëy laa wax ko ah man de am naa programme te nit moom mënoo def tëb tëb tëb rek te waxoo ko say mag noonu la demee nag. maanaam mooy sa kilifa su ma la dégg. ci ci ci tëgg. waaw waaw lépp lu ma def rek dama ko naan ah xalin nii nii nii xalin ma nii nii nii ngay def comprends nga loolu la demee nag moo tax man moom fu nekk loolu du problème si noonu la demee nag moo tax moom fu nekk rek maa moom di miinante bu baax. mooy sa complice man kay gis naa waxtaan bi yéen ñaar ngeen waxtaan entre col meeg dafay dafay lu doy waar. waaw parce que ay doomu géwél leen nag waaw ay doomu géwél te xam nañ bu baax lu ñuy def waaw noonu la demee nag. ay doomu géwél lañ xam nañ bu baax la ñuy def mais mais mais Khalil ginnaaw bi ñu jógee ko fii tamit war nañ dugaat ci benn ceebu jën bu gàtt ak waalo waalo bu gàtt mais mais avant loolu dañuy ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni maam ñi dañ ko fi bàyyi woon sànq dafa am loo wax fii lu garaaw nga ne doomu géwél nga ci ñaari côté yëpp wante ñaari communes yi la seq santaam la géwél yi fi ne maanaam yaa ngi leen di xabaray nga def nga fi lu ne marqué nga sa empreinte réew mi teg nañ seen bët soo duggee fii ci commune bi kenn dootul laajte xalin kan mooy xalin kay du dëgg mais ndax yow relation bi magi géwél yi amoon seen biir yow am nga kook sa naw la géwél yi fi ne tey waaw ci demlante bi ak dikkalante bi hmm, waaw si yaa ngi point bu bu xaw a sensible nag waaw ngi dugub ndax suñu suñu papa yi ak suñu mag yi mm-hmm. ñoom dañ daan demalante di ñëwalante mm-hmm. sans problème mm-hmm. da ngay am programme woo sa beneen xarit mu ñëw tëggale la sans problème mais xam nga la moo tax man demalante wu mag benn géwal ñëwalante wu mag benn géwal nouvelle génération bi nouvelle génération bi ñoo yàq lépp. mais maanaam ci ban côté da nga leen da nga da nga leen ñemewul wala boog wala boog da nga leen wóoluwul wala qu'est-ce que dama leen ñemewul ndax lan ndax ndax man mënuma tey nga wax lii suba nga wax lee ndax tey ji yow soo ma woowee programme ma ñëw sa programme ma ñëw tëggale rek laa war a def mais du ma ci yem dinaa xool yow ni ma la suufalee yow ba yow moo foofu yow foofu ngay nga kenn du la kenn du la foofu. xet la te man loolu noonu man j'aime pas. Hmm. ah te man dama la woo pour yow pour yow nga ñëw jàppale ma yow nga bëgg ma nëbbu yow pour feeñal sa bopp waaw ah. ah, loolu am na. non ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mais mais yi mu ci dégg est-ce que dëgg la. xam nga la may la may problème bi gis nga sa géer bu la bu la rek bu la miné rek yab la sa géer. te man yàlla dogal na de sama benn géer yabu sama benn géer la yabu ma ndax ne ma lu tax euh, doo sama géer chaque jour nga may gis wala chaque jour ma lay wax sama soxla déedéet man sama géer da ngay am sa problème ñëw ma ko ma fajal la ko. kon bokk ci géwélu VIP. non non man xanaa moo ñu bëri man fooguñu ma géwél ndax ndax sama comportement. man de intellectuel yooyu di jàngale professionnel yooyu di jàngale laa la tegoon. yaa man sama gër yow ma sama gër leen laa sekk ak yow fay da jaay sa marchandise ma ñëw jënd da ngay ngénte ma ñëw jàpp ci man du ma géwal yooyu nga xam ne ni comme. lambar lambar ah. sax man sama yaay lu ma. <laughs> yow yow euh, euh, des fois <laughs> sama yaay maa ngi ko de passage moom sama xarit la des fois nii lay euh, toog ma xool ne ma yow lan la mais début bi comprendre woon mais léegi comprendre na ndax day toog fi ay kilifa yu mag dañuy ñëw gaare si oto bi ñoo ne ko xale laay seet la may wax yow ñi fo xamee ma ne ko yaay ñii sama fulla ak sama fayda moo tax moo xam ma xamante ak ñoom sama fulla ak sama fayda moo tax ma xamante ak ñoom. sama yaay jooju nag maa ngi koy maa koy nuyu bu baax Ndeye Mbodj kooku jigéen yu baax la kooku moo tax ma ñeme moo tax ragaluma ci àdduna dara def naa fi tànn biir bi yàggul. def ko man fii waaw tànn biir c'est 2000 coow li bari woon na nag pare di waajalaat leneen def fi tànn biir mu jógee sama yaay moom woon ne ma ngir yàlla tànn biir bi tas ko ndax nit ñi amuñu fu ñu toog fes daal di waajalaat beneen événement bu ñu tabaxee ba pare incha allahu rabbi dinañ ñëw foofu dinañ ñëw foofu ci ci wàllu événement yi wàllu projet yi parce que tamit gis nañ ne li nga wax sànq nii dama yaakaar ne dafa am loo loo dañ ci coof mais dañu dégg yàqante bi liggéeyante bi soxorante bi xam nga ndax yow loolu yow loolu da nga ko entre yow ak sa nawlu géwél yi ba tax na ñeme woo leen doo doo doo leen demlante doo leen ab maam kaa lan la kaa bi loolu la wala parce que wax ji da nga ko cof soxor gi ci biir am na wala amul. non non soxor moom mi ngi fépp. ak ak ak programme yi tamit. prix yi prix yi tamit dégg naa ne dañ lay fay benn cinquante mil kay jaar ci suuf ñu fay ko vingt cinq mille mu jël programme yooyu yëpp yéen a ngi koy dund. waaw li ma la wax léegi léegi nii sama yaay dafa am lu ma wax xel yow da ngaa soof fekk soofuma dama xam li bëgg man da ngay ñëw ñama xel programme laa bëgg. mane ne la temps nga may fay nga ne bu doon diw de du def noonu billahi laa lay wax jugal nga dem sama yaay mi ngi may dégg da ngay ne ma programme laa bëgg ma ne la temps nga ne ma loolu daa bari bu doon diw de li loo koy def ma ne la jugal nga dem. la moo tax jugal nga dem. non ndax man bëgguma bëgguma genre détail yooyu. mais mais ki la taamu ba ba sol ay daalam seese la kay waxtaan na la moom ci njëkk rek. boo bëggee nit boo bëggee nit ki tëggal la bu la waxoon ay millions ay millions di nga ko fay mais man bëgguma nga ñëw toog ne man boo ñëwee ñëwal ne ma ñëwal ñëwal ci programme rek comme boog boo ñëwee ne ma ah ñun de li lañ am surtout bu mën doon tëggal man boo duggee ci gàmm boobu rek man damay teel a ndax dama xam ne yow nekkoo ku baax. xëy na daa amul lu ko neex ci Cheikh Thioub bu moto mu tàmm la. Euh, genre yooyu nag moo fi bëri. ndax man c'est pas la première fois duma pas la première de ki nga wax léegi léegi nii muy Nabila comment mu leen def toog naa fi nit nit woo nit ñëw fi ne ma dama bëgg nga tëggal ma ñun de Nabila moo doon tëggal ma ne xale bu bi xaaral tuuti ma ñëw génn ma laajal Nabila woo ko téléphone. ne ko loo jàppoon ba nga ñëw kooku ba nabi laa ne salaamaaleykum bi daa génn dem. xale bu jigéen dem. ndax la ndax gàcce. non man su ma nekkoon seytaane fa laay toog ne ko non booy ñooñu maa leen mën. dugg ci ay détails. ñun xale jigéen ñi defuñ dara mais ñun la suñu biir. kon kon coow li du xale jigéen ñi. ah non non ñoom xale jigéen ñi ñoom seen xaalis lañ yor di fay. mais nag damaa dégg ne léegi xam nga géeru njëkk yi. Mhm. dañ doon fidèle seen géwél jàpp géwél pendant quarante ans wala cinquante ans wala trente ans mm-hmm. mais léegi géeri léegi mm-hmm. maanaam bës la ñuy topp ak bës la ñuy jàppee géwél parce que dañ lay xewal xewil la léegi mm-hmm. loolu pour man pour man cas bi noonu la demee moo tax mu demee noonu rek mais mënoon ngeen waxtaan ak moom rek. non le problème à l'école lépp la ndax fii géwél bu ci am ful la am fayda sa gër du la yab ndax sa ndax sa gër bu la miinee rek yab la bu la miinee ndax saa su ne dem di wax sa problème. day am lu am fulla dala fi romb dem jëli keneen fay ko loo xam ne yow mosul la ko fay ah lépp ci ñun la ndax lépp fulla ak fayda la man néew ma keneen mais man man sama jëm bopp laa wax ndax su may jël exemple sama bopp laa koy jël man ci li may liggéey de am naa ci fulla goo xam ne de te yàlla ah may na ma tamit loo xam ne de xanaa ma ñàkk laa bañ a tëggal waaye bu ma tëggalee benn yoon dootoo doo doo jël keneen. maanaam kolo la xas ba ñam jeex na dootoo ñamate leneen ko déggandoo ko xas ba ñam dootoo ñamate leneen léegi dañuy xus ñàpp rek ci actualité yi mu am coobu fi amoon ci entre géwél ak ñeeño ci wàllu euh, suyekatu théâtre yi euh, sumbulu am lu mu waxoon ci loolu am lu mu yëngaloon ci entre géwél ak ñeeño yi gënante gi ndax loolu am na wala amul. xam nga Sénégal dafa métti. Sénégal moo doon dëkk goo xam ne moo gën a ci àdduna Sénégal dañuy jaawale personnage loo xam ne nit ki moom lay dund ak loo xam ne dañ ko ko kon li mu def dara new non a ah, man sama gis-gis bopp xam nga ku nekk gis-gisam la am yow sa gis-gis dara new non xam nga Soumboulou dañ ko bindal test fay ko pour mu jouer ah, man de li ma koy digal mooy buñ ko waxataloon buñ ko waxataloon mu jouer leneen na ko jouer ah bon mais mais mais yow yaa ngi dund comme comme entre euh, mag ñi li ñu daan def di xeeb di xeeb géwél yi nga doxaan benn xar bu jigéen wala boog nga am loo seq moom ay waajuram xam nga hmm. di xeeb gi askanu géwél quoi ci domaine yu mel noonu yooyu yooyu yéen koy dund ba léegi yooyu amatul ah man de wax dëgg fa yàlla musuma koo dundu waaye de ci àdduna géwél amul ci kaw suuf lu géwal mooy gis lu baax. moom géwal. géwal. waaw. yaa ngi comprendre. waaw géwal benn mooy gis lu bon mu soppi ko lu baax mooy gis koo xam ne kenn nawloo ko yaa ngi comprendre mooy gis koo xam ne kenn nawloo ko mu fexe ba ñëpp nawloo ko. mais est-ce que loolu boo bu njëkkoon géwéli démb est-ce que déet géwéli tey est-ce que ñu ngi def lu mel noonu. non ba léegi am na. ndax ñi def li baax ba léegi ñi def li baax. mais mais rafetal bi géwél yi daan def ba loolu daan am est ce que loolu mu ngi continuer ba léegi loolu amatul amatul sa non moo tax ma ne la Sénégal moo gën a moo gën ndax loo wax. léegi géwél na ma yàlla baal baal ma parce que barki démb dama waxtaan ak benn imam mu ne ma éducation xale yi ci réew mi yëpp géwélee ko yàq ma ne ko lu tax mu ne ma seen façon tëgg mi seen façon euh, langage waxi ni ñi bu tëgg yi ñuy wax affaire yooyu quoi kon yow boo taxee wax loolu tamit ay la may def. non non ñun bokkuñu ci. jëwale bu njëkkaan dañ daan wax lu tey bi nga am. dëgg lu yeete. waaw fii nii euh, ñi may àndal ni ñëpp barki Seydina Mouhamed bu ñu soloo ba génn dem tëggi billaahi doo fok foog ay tëgkot sabar. lan lañ leen di foog. da ngay yaakaar dañoo jóge bureau. barki non. waaw sérieusement. Ah non la preuve àndee ah, ko bi nga ñëwee léegi léegi. am nañu fekkee attaque atabar nekkul da ngay sol ay ay couleur def jëfi dof tëgg sabar noble la noblesse la géwal noble nga yow waroo dox ci mbedd bi ñu lay naan uncam mm, danga nga war a dox ci mbedd bi ñu lay dab dana war a teeru comme président mais moom géwal waaw waroo doon loo xam ne da ngay romb ñu naan la cum kii mais ci biir yi tamit bëri na bëri na ay wax yu ñaaw parce que des fois ñu ne tëggkat yi ay góor jigéen lañ ay góor jigéen lañ xama ay façon wax yoo xamante ni géwél yi rek lañ koy jiiñ quoi man looloo ma métti mais loolu sant yàlla loolu dafa am si biir loolu sant yàlla la mooy nu mu nekkee sant yàlla euh, loolu sant gi nga ngay dox ah waa rek déglu la ba xam nga nit kenn ko jugé ci apparence am yaa ngi comprendre hmm. nit kenn du ko jugé ci mu nga gis nit mu sol yére yére bi mu mu mu xaw a demee noonu. mu xaw a demee façon ya yooyu. yaa nga romb ko ne ko ah, nga baal ma sax bi tax. Mhm. la nga ne ki góor jigéen la. yaa ngi comprendre nga ne kii góor jigéen la. nit ki boo boo ko boo ko boo ko fréquenté wulee doo xam ci ko fii am na ñu bëri ñoo xam ne ni ñu ngi dox oh. ci bi di góoral di dox boo rombee nga ne ñi ñi ay góor te barki Seydina Mohamed bu guddi jote waaw <laughs> su <laughs> ñoom la ñuy kii ah. <laughs> xale ah. Ah. la preuve en est ah. man lépp lu ma wax day ñii de li ma ma fenn am na benn boîte bu ma doon tëgg fii nu mu tudd boîte bi déedéet. Euh, ci boîte yooyu lañ jëm de après ci boîte na ñoo xam ne am na ñoo xam ne man ba ma duggee foofu virage. man ba ma duggee foofu laan fa gëj gis te foofu laa doon tëgg chaque mercredi fa laa gëj gisee te ñooñu man buñ ma waxoon ni ñii fi laa ni fekk barki Seydina Muhammad tant que teg mu sama bët bii du ma ko gëm. mais loolu dafa nit kenn am. mais dafa bëri ci milieu parce que tamit. bëri na ci am na ñoo xam ne nii tey bu ñu doxoon nii wala ñoo ne la la nga ne ndeysaan ki la te noonu la ko mais am na ñoo xam ne fi lay nekk ci mbedd bi di xeex te barki Seydina Mouhamed ba mais mais mais mais mais ñi ñëwaat ci parce que temps bi jeex na euh, nga jabar wala am jabar. <laughs> non non ko tey de. am nga jabar. am yow léegi soo doon takk jabar ma laaj la yow ban jigéen nga taamu parce que tamit buñ la mayoon jigéenu milieu di nga ko takk wala doo ko takk. su ma mayoon. jigéenu milieu. no Jameta milieu waaw ngeen may ma tax passage jigéen jigéenu milieu buñ la ko indiloon doo ko tax non non jigéenu milieu moom doon set la la moo tax doy na ndax man sama yaay ji moom day mbooj moom bëgg naa ko andil koo xam ne bu xëyee dina toog dox ci ay waayam mais jigéenu milieu nga xam ne dangay ngay togg da ngay du yendal du fanaanal tamit ñu waxante dëgg mais mais mais yéen tëggatu sabar tamit ak ak ak mbër uh-huh. yi jigéen yi leen di topp tamit ay ay ah na ma yàlla baal mais. Eh, xaaral yaa ngi yaa yaa ngi andi yaa ngi andi kii xaaral maa ngi maa ngi xaw ma sax <laughs> yaa ngi andi pédagogie na ko ah ndax waa dëgg rek. dëgg rek day leer. amaguma jabar amaguma jabar mais te ko nag. waaw waaw yàlla daal waaw. non mais si jigéenu milieu yi di nga takk wala doo takk. jamais de la vie jigéen moom normal teel a xëy guddee wàcc. xale yi volé di suuf. non man non yooyu moom j'aime pas. ñi ñiy seen bopp yi di tent tamit di bëtt ay làmmiñ daf ay affaire. d' accord ma mm. man moom jub rek dèjà man sama papa rek daa sama papa boo xoolee ay doomam kenn bëttul kenn matul dégradé kenn takku chaîne te ay doomu géwël ñun suñu papa dañoo teel a teg ci yoon heure heure juli heure juli dañuy juli ah bon da ngay julli ah. tamay doomu julli ñu tuddee ñu ñu ñu tuddee ba xalil yàlla. mais est-ce que xam nga lu ñuy jullee. Ah, man la moo tax xamu ñuy jullee. kañ xam nga xam nga xam nga saa bu def émission bi mm-hmm. suñ demee ci cappaandaw gi mm-hmm. dañuy laajte ñaari question ak invité bi ci wàllu diineem. léegi yow ñaar laa lay laaj comme que doomu jullit nga te yaa ngi julli pour nga wax ma ñaar yooyu lan la quoi pour ñi lay seetaan ponk lislaam ñaata la faratay njulli ñaata la. on peut demander ta question. ponk lislaam ñaata la mhm. faratay njulli ñaata la. juróom la juróom. ponk lislaam ñaata la faratay njulli ñaata la. juróom juróom. <laughs> eh booy eh, dama mu bàyyi ngir yàlla. julli. fajar non julli juróom. juróom la. ku ne xam na lool mais ponk l'islam ñaata la. non ponk l'islam xamoo ko. xamoo ponk l'islam. ah da ngay doomu julli. waaw mais am na droit. <laughs> mais ponk l'islam mhm. dañ la. Eh, may la ñu yéen yéen nekku invité yi de moom mooy invité bi yow ponki lislaam cinq ponki lislaam yi ñaata. ah man euh, dama damaa damaa damaa damaa comprendre woon sa question moo tax damaa comprendre woon. waaw ñëw ci. waaw su ma juumul. waaw. Euh, euh, da ngay joxe kii joxe nu ah, neex non da ngay natt koor aji màkka non non aji màkka waaw ci boo ko mënee waaw ci boo ci boo ko mënee mhm. joxe asaka asaka waaw ci boo ko boo ko amee euh, ak ban a añaat añaat laa wax sax <laughs> ñaat laa wax <laughs> ah. na juróom juróom ñett na sëkk non man na non cinq nga wax léegi léegi faratay njàpp faratay julli ñaata la. faratay julli faratay julli julli daa am farata njàpp am farata te boo ci manqué julli gi matul julli julli euh, faratay ñaata la. non à à compris de. léegi gën a léegi faratay julli faratay julli. juróom la. faratay juróom bana ban la. Euh, euh, fajar. <laughs> tiktok bi tey mu am gande nga ne lan aywa aywa yàqu naa yàggali yàgg yàqu naa de non dama bëri ay noonu ci tiktok wax léegi garaaw xamal lu mu bëgg léegi li xamal ma ah non non li xam mën naa ko li xamal astafurlah astafurlah akbar allahu akbar ashhadu la ilaha akbar laa ilaha illallah sayyidina muhammad noonu liqaamaatal parce que li nga liqaam nii imaam bu ko seetaan dina xam ne bismillah astafurlah astafurlah allahu akbaru allahu akbaru allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ay yàlla sala yàlla salaat xamat salaat allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah boobu mooy liqaam léegi taaya euh, taaya euh, at taxiyaatu lillahi boy boy boy boy boy non baabu jàll léegi waa léegi garaaw léegi garaaw waaw léegi dañ koy bàyyi dañ koy bàyyi mu tàggatoo dañ koy bàyyi mu tàggatoo mais dañoo gis ne sa benn jigéen tamit fii sa dëkkandoo la mais temps mu def fi bruit coow ci entre moom ak ki mu doon sëyal lan nga ko ci wàllu xale jigéen ci wàllu sëy sama benn jigén noonu xale bi dëkk fii nii te mu yëngal jamono bi dëkk fii nii ah xaw ma ko doomu dugal kan la xale bi da bës nii fan yii. Ah, ah, moom ak xale bu moom ak xale bu góor bi noonu sëy te après seen sëy xale bu góor ban man xale jigéen ñi ma xam ñi def bruit bëri a de ah nu tudd. Mario ak ndaxte. ah da nga leer. non non xam nga kenn ko ci nekk moom am nga sa vie privée ndaxte suma xarit la mariage boobu man maa ko tëgg. kañ boobu man maa ko lo loolu lool lool loolu nag moo taxoon ma bëgg cee laal parce que yooyu yaa tëgg mariage ba mais coow judd na te géwél bu histoire amaan géwél mooy sol ay dàllam dox tànku jàmm yow nga yëg coow li toog sa ruq waxoo ci doxoo ci lu waral loolu te ndaxte nekk sa jigéen euh, Mario nekk sa góor. mais xam nga sëy dafa xaw a doon loo xam ne dafa sensible. Hmm. waaw tey ñu bëree wax te yàlla. maanoon na maanaam goo xam ne kenn ku si nekk bay wax ni lay def di la xool te aduna daa gudd daa gudd tànk tey jii nii Mario Mbaye ak ak ndaxte buñ jibawaatee la la la Sénégalais di wax. ah lan la ñuy wax ndax kenn ku ci nekk yaa ngi toog naan non lii la war a def war a def lii te sëy yàlla euh, moo daganal sëy mais a bëggul te man ñaan naa yàlla ñaan naa ñu delluwaat. yow boo ok léegi nee na bu sañoon ñu delluwaat léegi dama bëgg rek euh, li sa kanam parce que artistes yi ñu ngi def single di def clip di def ay soirée mais xalil dégguñu ko ci single yi dégguñu ko ci clip yi dégguñu ko ci soirée yi am na looy pare wala amul lu pare wa dara. bu yàggul rek bu yàggul rek. waaw yëngu kan moo demoon yëngu leen. ak wala. dañ la invité woon wala yow ce soir. man Khalil Gueye. yëngu leen nga dem yëngal ko. ba ah, di waajalaat beneen. bi ngay waajal kañ la. le le vingt et un. waaw le vingt et un dama ci bëggoon le vingt et ñu ñu tëjee foofu lool ah. foofu. le vingt et juin bu ñu bu ñu bu ñu tabaxee ba ci premier vendredi bi. bu ñu tabaxee ba premier vendredi. waaw koy defee Liberté 5 Uba bi Uba. seyu baa nga koy defee. boo ñëwee ba ci tournal Liberté 5 bi boo jaajee noonu rek moo nekk sa gauche di ci woo nit ki amoo dara dul sa gox te man waa xar yàlla dañ ma dooleel fu ma wootee ñoo fay njëkk ñoom leen ñoom leen lañ waxoon soirée bi ay sa dugub bu faayef ndax foofu ndax foofu daa grand théâtre Sorano. Hmm. nga dem di song ay Uba. mais chaque Uba ñaata place la yow. est-ce que est-ce que xool nga ñaata place la la tàngooy song. si bien sûr baax. foofu doy na la. sûr say nit ba say nit xaj nañ foofu. non sama nit xaj ni foofu. billaay sans sans blague nag du nekkul pour dama bëgg wax mu neex rek mais xajuñu fa franchement parler di ci woo waa xar yàlla ci woo waa Grand Yoff waa Jëppal waa Derkale waa ñëpp bàyyiwuma kenn. à partir de vingt deux heures lay commencé ndax nekkul soirée boo xam ne day guddee ndax dafa am ñoo xam ne ni samay kilifa lañ te ñoom la ñuy bëgg di ñëw samay soirée moo tax ma def ko vingt deux heures mai nekkul dara moo tax ma koy def. vingt deux heures lay commencé ba ban heure lay commencé ba du matin. ba quatre heures du matin waaw ba pare nga may ma rek ma am ñoo xam ne foog ma sant leen mooy euh, Babacar. Babacar Babacar euh, Momo. Momo mhm. ak Lama ak Petit Galo ñooñu tey li euh, su ma demee ba nit ñi di ma dégg fenn gi yàlla ak ñoom la ndax ñoo xam ne ni ñoo ngeeg ñoo ngeeg say ñoo ngeeg seen liggéey bopp ba ñoo di ma dooleel yëkkati seen xaalis di ma jox lu ñu xam wax ma fu ñuy dem yóbbu ma boole mag ay ñu baax xam nga ñooñu noonu amoo dara leen dafay mm-hmm. di leen nuyu nag waaw ñooñu fu kawe laa teg di leen nuyu ba di di nuyu waa yoole groupe yoole groupe ñoom tey jii su ma rombee ci mbedd mi ñu naan ma xalil ñoom ñoo ma dooleel groupe yoole waaw coow bari na torop mais booba léegi ñu ngi jàpp fu ñu jàpp mm-hmm. ñii maan gën lu ñu am kenn demul kenn dëkku maa leen gënal lu ñu am ci àdduna tey jii bu ñu demee ba may dégg yàlla ñoom la ndax ma kese mënu ma dara ndax su ma taxawoon fii foofu di tëgg kenn du ma faale mais ñoom ñoo ci jàpp di leen wax ne xëcc moom bu bu dagul dëkk kenn ku ci nekk bu téye fi nga war a téye jàpp fi nga war a jàpp incha rabi dinañu dégg fu sori incha allah yàlla def dinañu dégg fu sori léegi sa numéro téléphone bi nga xamante ne nii pour ñi lay seetaan. nekk fu ne ci àdduna soxla la ci seen événement pour bëgg nga animer leen numéro téléphone bi après nga ñu après nag nga ñëw am am am am loo ko tëjee. mbaa duñ ma woowaat. moo xam nag Baara Mbay la wala dëggal ceebu jën la wala waalo waalo lu mu doon nga am loo tëjee émission bi léegi joxal sa numéro nga tëj émission bi. sama numéro bi ma ko joxee mbaa duñ ma dóor. non joxal numéro bi. baax na 77. 267. 44. 66. xam nga man yaa 77. 267. 44. 66. dama joué jàkkaarloo. waa léegi-léegi rek. dama a joué euh, sama benn mag mooy tax jabar tey jii buñ demee nii buñ jullee timis ba pare rek fa ñuy dem toroxal seytaane xam nga rek def ko yëf géwal. yéen daal lépp ngeen di tëgg daal lépp ñu daal lenn lañu tëgg événement bu ñu leen woo ngeen dem animé ko ba mu neex. non mais nekkul yëpp la ñuy animé de. ah ah. <laughs> ci yan ngeen doon animé. ah xoolal rek. <laughs> Watch the camera with it. Mais man léeg-léeg oh. <laughs> am ay waay ama ama amal loo tàggatoo waaw ci ci wàllu ambiance bi ñu xool ceebu nga sànq dañoo woote ci kii dañoo woote ay barambay ay ceebu jën bi nag amaa bëgg ñu waxtaan ko waxtaanu ngéwél bu ci suuf rek waxtaanu ngéwél suuf eh cool bi jox cool mi nee na waxta nee na waxtaanu ngéwél coy waxtaanu ngéwél